beneen bi yaa ngi may posé la première question c'était Ndiaga Diouf ah waaw mais mais Pierre <laughs> mais yow Pierre yow yaa gën a xam ne ni man dañ may condamné taa tu le sais yow xam nga ni dañ may condamné Pierre parce que Pierre Sénégal wax nañ ko justice bi wax dëgg yàlla justice bi kenn amatu ci yaakaar kenn amatu ci yaakaar tey posture Ousmane Sonko je du ma du ma ko commenter dama ko respecter c'est son droit man munuma xas kenn kuy jóg tey ne man daw ma wuy yi tribunal man ñaata yoon lañ ma convoqué fi ma ne man ñëwuma yéen xam ngeen ci dara fekk ngeen lépp yéen da ngeen fekkee démb ak bërki démb Sénégal bi dara beesu fi fii gars yi ñooy foyee seen xel rek dara beesu fi fii tey am na benn candidat su amee élection suba moom day bokk mais apparemment ci lu ñuy gis ñun parce que ñun ay acteurs politiques lañu yéen ay observateurs politiques ngeen yéen xam ngeen bu baax ñu ngi koy jëm a galgal dara beesu fii xanaa Khalifa Sall kenn kenn galgal ko fi lu lu tax ñu galgal Khalifa Sall parce que lu sondage yi waxoon mooy su bokkoon élection présidentielle 2019 amoon na làmbaay ñaaw kon fii dara beesu fi mais Khalifa Sall bañ koy toroxal. tëj ko ci kaso bi foqati ay mandaa musul salit musul saaga kenn musul xas kenn musul gaaruwaale kenn teg ci nag képp ku bëggoon doon candidat musul xas sa candidature képp ku fi campagne musul a xas teg ci nag tëdd kaso ay nit ñëw di ko fekk si ci kaso bi di sàkku ci moom son soutien Khalifa Sall a été diñ jus ko bu Sall mérité wul tey duñ koy teg te dama ne dañu dul toogati di ko seetaan yéen bi ci kanam raaw li bët nañ dem rek.